Babacar jaañ gi dégg naa ko sax suba ñu koy revue de presse. mais man daa am lu ma gëm mooy euh, dictature médiatique fa lañ jëm. te presse bi yëpp ñoo war a jug waxoon naa ko ci solution croque sama chronique dama koy waxaat fa lañ fala fa ñu jëmale bu ci kenn nax dinañ dem ba egg ci élection fii Sénégal ñu ne résultat bu ko télé rajo joxeeti bu ko rajo joxeeti buñ bàyyee ñii xeex bi warul yem rek ci taal nañu nit ñuy continuer nekk ca lan nekkoon xeex bi daa bu dul loolu ñoom ñëpp dénk ko kon euh, ñu sóobu ci waxtaan bi comme ni nga ko waxee tey ñu ñëw ci benn point li def wax lu ay di jàmbat moo tax munuñu ko tëb ndaxte lépp loo xam ne xew na ci réew mi dañ koy teg ci penc mi waxtaanee ko mm-hmm. fan yi danoo dégg ay sëriñ yu bari du ne sëriñ bi wala sëriñ bee wax ñii na ndigal ñii na du ndigal wax ci ni kàddu gi dañ koy jëmale ci kenn kenn ki kook mooy Ousmane Sonko ñii ne kat de jëmalewuñ ko ci moom waaye la xewoon ca Mbàkke lañu bañ mu xewaat loolu lépp nag euh, ngir mën ko toogee waxtaanee dañuy am lu ñuy ànd ak toog ak Modou ak Ablaye léegi doog a dikkaat ci waxtaan bi. bu la sa yaay waxee bul dem bu ko faale bu la bàyyi waxee bul dem bu ko faale teew yaa ngi denc sa doom sa kër boo dee sa yaay dana juraat keneen loolu wax la Sénégal dafa mës a am xel mu ñemee taxaw jàkkarloo jigéen bu ëmb juróom-ñeenti weer ne ko garaawut kii nga jur nii bu dee it demal jur beneen rek c'est-à-dire projet bi ñu nekk moo dëgër état duy wax projet état programme lay wax waaye suma gars yi projet rek ngay dégg ñi wax ñun njiitu réew mi nun mag ñi njiitu réew mi rek la ma àndal njiitu waaye moom waaye loolu moo nekk nun fi mu ne mag rek la ñu mën a àndal rek la ñu mën a àndal Macky dong la nee na nag Seydina Ousmane daa jàppoon benn date ngir bëgg yëngu si fii ci Mbacke muy li wax am mitin waaye bi mu yëgee ne sëñ Touba daa jox ndigal Cheikh Ibra Fall ñu war a defar marché Ocass ak li ko wër ci la joxe ndigal moom ni ko nan bàyyi la ma doon wax ci nekk li sëñ Touba wax ba loola noppi ba loola noppi nee ca képp ko ànd ak moom it. nga dem jëfe ji ndigal loolee sëñ Tuubaa digle su ko defee ñu ñaan yàlla ñi nga xam ne ñoom la fi yàlla teg ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci kuje gi ñu toog autour d'une table waxtaan wax dëgg yàlla bàyyi xel askan bi waxtaan ci seen biir parce que am na loo xam ni nag waxtaan rek a koy maye du force <laughs> mi ngi noonu ku ne wax na ci ñi yëkkati seen kàddu jëmee ko ci actualité bi dem nañ ba dégg sax kenn naan bu ko fi kenn tudd diw kàddu googu rëcc ba jur ay commentaires yu bari ci dëkk bi ñu dégg am na ñoo xam ne te seen kàddu ñu wax ko jëmale ko ci askan wi ñi jàpp ne ndigal la ñi jàpp ne du ndigal kàddu googu nag kilifa yi diine yi dugal ci politique bi tamit dégg nañ ci li xewoon ca Mbàkke am ñu ci jug wax ñoom ñëpp am nañu sañ-sañu wax parce que man daam lu ma bañ ci àddina mooy terrorisme intellectuel man bu ma juddoo ba léegi leen laa gëm mooy damay wax sama xalaat moo tax ku wax ma nangul la ko waaye tamit mën nga wax sa xalaat mais aussi du tee nga bàyyi aussi te nit ñi am droit commenter li ngay wax parce que li ngay wax bu doon da nga tëju ci biir néeg wax ko kenn dégg ko kenn du ko commenter mais comme ci penc nga waxee ci penc li ñuy toog commenter li nga wax. d'abord Seydi Lamine ñas yàlla na suñu borom yokku leeram te tas ñu ci barkeem histoire da koy jox raison à chaque fois heure bu ñu demee ba dara xew ci réew mi rek da ngay fàttali ay waxam dama mës a dem lew na ñaseen am na tàkkusaan gu mu fa daan def dama mës a dégg mu wax ay kàddu mu ne cérémonie religieuse yi di am ginnaaw yenn événement jëm ci wàllu diine ci Sénégal benn danoo war a dem mu doon cérémonie religieuse maanaam cérémonie boo xam ne diine la bu nu gàmm wala màggal ba ca suba sa bu mu toogee wax waxi diine mais aussi xiir taalibe yi ci diine noonu laa jàngatee woon waxam. mu ne yenn cérémonie day dem ba doon une cérémonie politique dem ba nekk turbine pour les partis politiques wala état du Sénégal pour mu mën a ñëw def propagande ci politique mais bu ndee ba jamono duñ sore ak loolu maanaam cérémonie religieuse lañuy wax mais bari na ci yoo xam ne politiciens yi dañ koy profité wax seen waxi politique ñi leb la fa seen i bor ñi fayeku fa seen i bor te est-ce que loolu moo taxoon a jug cérémonie religieuse yi ñuy amal loolu laaj la beneen bi ci topp. mooy fitna yi amoon ci béréb fitna yooyu kenn ñaanul mu am te kenn bëggu ko te warta amaat même bu doon ni sax cim ndakaaru gi fitna moom baaxul te warta am fenn lépp nañ ko jaar yoon waaye mbir bu amee ñaar ñooy ñi ko séq mooy ñi ko tere ba loolu am bokk nañ ci ñi ko sabab waaye tamit ñi xëtt ndigal ba loolu am bokk nañ ci ko sabab maanaam bu ndee atte di maandu atte gi day laale ñi ñu tere ñu xëtt ndigal waaye ñoom te ñi aye lu mu warta aye ñu wax leen ni li ngeen aye yéen waroo leen ko aye politique ak diine dafa yàgg fii ci réew di Sénégal bu nu waxee Serigne Cheikh wax politique wax ci ñuy kilifa yi fi nekkoon ku mu ne ci ñoom am na ko faroon mais tey jii far gi est-ce que dem na ba egg ci niveau bu ñu egg parce que dañuy seetlu ni opposition li ci ëpp bu ñuy yedd opposition li ñuy ëpp li ñuy yedd ci penc même bu jotee amee opposition bi leen naan bu leen fi yee fitna bu leen fi def lii bu leen wax lii bu leen taal réew mi yenn kàddu yu jëmee ko ci ñoom te pourtant jamono jooju opposition bi di def loo xam ne naka sudul noonu ñu war ko wax jamono jooju la nguur gi di def loo xam ne tey jii ñëpp dañ ci teg seen bët mais dafa mel ne kenn du ci bàyyi xel dama lay jox benn exemple mooy CUDIS mooy cadre unitaire de l'islam au Sénégal benn kuréel la ginnaaw coowal aji Sarr ak Ousmane Sonko coow yu fi amoon ba jur yu bari fi ci réew di Sénégal kuréel gu judd dañuy faral bu dara xewee ñu génnee communiqué di ci wax mais communiqué yooyu des fois da ngay jàpp ni tax wate tax jëm ci benn boor la wala dafa féete jëm ci benn boor maanaam dañ koy lu ci ëpp ci biir booy jàngat communiqué yi mooy opposition bi li ëpp ci naan duñ wax lii duñ def lii te tey jii bi ñuy toll fii en 2011 am na ay kilifa yu jëloon seen responsabilité jàkkaarul Abdoulaye waat naka doo fi am troisième mandat man dama déggagul kilifa gi taxaw ci réew mi naka Macky sàmmantaleeg sa kàddu ak diine lu mu wax ci kàddu mooy Macky sàll sàmmanteel ak sa kàddu ñaari mandat nga waxoon ñetteelu mandat mën na taal réew mi la nga waxoon ak waa réew mi wàcceel ak loolu loolu dafa jar wax lii xewoon tey jii ci corniche bi ban naan Ousmane Sonko kar nañ ko wàccee nañ ko yóbbu nañ ko këram maanaam boo di boo nee la xew ca Mbàkke warut a am dangay taxawaat nga ne nag li xewoon ci corniche bi loolu de mosuñu ko gis ci réew mi ña ko doon def de lii de bu mu amati ci nga boo waxee noonu ñëpp da lay dégg kenn du ne da far. kenn du ne faro mais ñëpp dal lay dégg waaye bu dee yedd gi ak xas gi ak jubbanti gi day dem rek ci benn boor ci jamono jooju tey ji nguur gi nekk fi ay nitam di saaga ay nitam di xas ay nit ay nitam di dal ci kaw ay nit ay nitam di duma ay nit ay nit jël ay nit tëj ci kaso bi ci loo xam ne jaarul yoon justice bi tamit yenn saa ñu dingat ko ni ci ni moom day wate a jëm ci benn bor attewul te maanduwul loolu dafa jaroon tey ji bu ñu toogee ci pénc ñu waxaale yooyu yëpp day tax wax ji neex a dégg waaye bu dee ni wax ji day jug rek di dal ci ñenn ñi te ñenn ñi kenn du leen wax dara te la ñuy def ñëpp di ci teg seen bët bu boobaa askan dañuy jaaxle ci ni ñii ñan la ñuy waxal ak kan la ñuy waxal ak lan moo war a tax a jug seen wax ji bu dee ni Ousmane Sonko moo tax tey jii wax ji yëpp jug usmaan Sonko lan la jotee këru diine yi danoo mës a dégg mu saaga leen danoo mës a woote demu ca danoo mës a joxe ndigal mu xëttu ko léegi tey jii ku ne ci ñoom man dama bëggoon rek ñu wax ñu lan la ñuy reproché Ousmane Sonko. ak ñi fare ci opposition bi lan la leen di reproché loo xam ne nguur gi defu ko ñun waxuñu leen ñu far fii wala ñu far fee waaye li am solo mooy danoo xam ne nañ jaboote ñëpp ca seen taalibe ku ne daam fu mu fare man te loola sama xalaat yenn ci discours yoo xam ne génn léegi nag jëmalewuma ko ci Massamba jëmalewuma ko ci Mademba waaye nag comme ci penc lañ waxee ñun ci penc la ñuy toog wax suñu xalaat euh, son yu jërëjëf Omar bun Xataab Gueye ci li am solo li nga xam ne indi nga ko tey jëmale ko ci kilifa diine defe naa yi nga xam ni dañuy génn di wax seen xalaat te des fois mu am ay problème maa ngi euh, euh, déglu sëriñ Abdou Karim Mbacke borom makaarimal axlaax xam nga way juróom dafa ku wax feeñ nag ku wax feeñ mooy su ma demee ba ci biir wax ji dana dana dana leer xam nga sëñ Fallou euh, way juróom dafa jàngale woon code de la route. ñëpp ni code de la route bi de bu ñu ci tegee accident du am problème du am mooy ni nikk ki ni dëgëru ni jàkk bu ne yàgg nga ni yoll bu ne tacc nga ni tekk sëñ Abdou Karim dafa jàngalewaat liñ naan démocratie ci am réew ci man li ma déggee ci am ci ci ay waxam. Mm-hmm. sëñ Abdou doomam dafa toog di jeune di ndaw. Mm-hmm. ay taalibeem toog di ndaw am ci ay mag. Mm-hmm. mu ni ñun mag ñi mag yi la àndal. waaye xale yi ku mu neex ànd leen ak moom. xam nga loolu démocratie la maanaam réew mi defe naa du kirim ci nga nekk kilifa goo mën a doon nga faral ko bëgg a faral du crime. ndax ñaari ganaar sax bu ñuy eh, xeex dañu naan diw la faral. Eh, ñuy dem ba koy misaal ci ni sax yàlla li muy bari ay yónent yëpp am na ku mu faral mu yónent yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam. loolu mun a ñàkk kon sëñ Abdou Karim bu dee ci côté eh, wax yi ma dégg waxam am na fu mu wuute ak ñii ndax moom. wax na li mu wax ci discours am. muy ñun Macky la ñu àndal d'accord mais xale yi ku mu neex àndal ak ñoom poñewul kenn ci ku la neex voteel ko joxul kenn ndigal ni voté la diw mais am na droit ni man kat diw laa faral te loolu am na ci droit taalibe bu mu neex nag moo xam taalibeem nga soppeem nga nga def loolu gis nga loolu bu ko kilifa yëpp defoon mhm. joxuma kenn digal nag benn kilifa na ko def mais dama ne wax jooju bu ko ñëpp defoon coow du am ci réew mi mhm. waaw nañ nañ jabar rek nee nañ daal ku neex ndaw ñi daal nañ xool ku leen neex ñu faral mhm. ñun mag ñi nag Macky lañ àndal ñu bàyyi mag ñeeg Macky ak ndaw ñeeg bëgg àndal Euh, dégg naa léegi ci son yi benn son bu ñu teg euh, xaw ma kan la ci ci ñoom wax na ba wax ni gars yi projet projet rek la ñuy wax du ñu wax programme mm-hmm. sëriñ si nag bi ñu leen di déglu defe naa dégluwuñu leen pour ñu décortiquer ñu ay programme ak i nàngam ñu dañu wax ni suñu côté diine mm-hmm. dañ cee soxla ku ñu dimbali ku ñu yee waaye nag bëgguñu ku ñu bàyyi booy politique yi nañ ciy wax seen xalaat mm-hmm. mais bu ñu ciy wax seen xalaat man xalaat yi ma ci dégg yu ci bari dafay mel ni ajaratu bétti mbig dugg sama kër ni dafay aaye maanaam day aaye fecc te waxul tëggkat bi na bàyyi na bàyyi tëgg mi ñi fecc ñëpp muy wër di bi ñuy daanu te waxul tëggkat bi bàyyil tëgg mi saa ji dañ toll ci réew mi ci jamono ji koo xam ne kuy wax kàddu gi leen la war a doon muy dafa am ku ma dégg koo xam ne ab opposition la ci réew mi ñu ni day yee fitna man maa ko dégg moo de mars mu ni am réew de foqati ko day yàq am réew fexe ba yeneen euh, loxo jot ci day yàq am réew uhuh. nañu may waaji ba 2024 mu àggale su àggalee ñu dem ay élection ñu tànn ki neex ñu teg ko fi may dégg di dégg loolu ba yàgg ma dégg mu yoraat yenn discours mooy ñu war a wax ak président Macky Sall nañu wax ak moom ndax du ñu nangu ku ñuy jaay doole te ñu gis nag lu bari am jaay doole la keroog misaal naa ko ba misaal ko ci oustaz bi doon wax ma ni ko ku la doon tere ngay def ay conférence ci réew mi di bàyyi sa beneen moroom oustaz muy def ay conférence ci réew mi bu yàggee injustice day feeñ kon dama jàpp ni kilifa guy wax lenn war a nekk kàddu gi mooy kilifa gi yore baat bi yore doole ji yore ndigal li na yemale njabootam. Mhm. moo njabooti opposition bi comme ni mu njabootee réew mi mais man jàpp naa ni amul benn kilifa li may li nga xam ne nag loolu laay wax pour ñu di ko bàyyi di ko wax nañu bàyyi di wax di dugal seen seen wax naan ku wax ñu saaga la loolu daal man maa ngi koy ñaan kilifa yi nañu bàyyi di wax kàddu googu ku ci ne na nga wax sa xalaat mais bul yabal gaa ci ay saaga ndax man jàpp naa ne ku jaar fi nga war a jaar jàpp naa ne même bu ñu la saaga nga war a def fi mu doon daal wax ji mooy wax ni kii fecc na bàyyi fecc nañu wax kii tëgg di président Macky Sall na bàyyi tëgg mi mhm. waaw saaga moom ak fu mën a jógee ci ku mën a dem ah, ah, baaxul ah, ah sa maa jigéen ñu ñu ñëw ci kii bi. waaw Omar son bi dafa wax lu am solo muy que ni nit boo yoree kër comme ni mu expliqué si ajaratu rek man dama si appuyer mooy que ni même nit ki soo nee da ngaa jël see responsabilités nga ni man diw laa àndal par respect. del jéem di fexe nit ki nga ne moom nga àndal su nekkee su jàddee aussi nga jëm koo fexe jubbanti parce que loolu mooy loolu mooy démocratie bu ñuy wax parce que tamit bëgguñu nga ne diw mii kat nangam diw mii kat nangam te jéemuloo wax ni ki keneen ki nekk ci côté bi nga jëm ko jël ko rek tegee ko de côté ne moom mooy ay moom mooy indi fitne yi moom mooy def lépp te yow gis nañ ni même ki yore réew mi sax parfois da exemple bu ma lay jox bu ndaw rek mooy keroog li xew mënuñu ne yow sa waa dañu toog fee di def euh, conférence de presse solo ñoom nu ko bëggee keneen nekk ci opposition bi bëgg ko def nga bëgg ko ko xaj mel ni comme si moom dañ ko jàppee ci loo xamante ne nii war nañ ko mën a teg sax ba ba ne dañ ko def euh, sous résidence surveillée mel ni comme si moom dafa rey nit am na yenn yoo xamante ne nii ñoom ci seen jëmmi bopp ñoom ñoo war a jël seen i ay responsabilité wax ak ñaari côté yépp parce que mënoo xas ki euh, jàppale ki si des wala nga ŋàññi ki faral kii wala ngay wax bëgg lu neex diw mi kat ba nee nangam certes ay ay homme religieux lañ te dañ leen respecté trop te taalibe yi jokk nañ ci moom am na ñoo xamante ne nii seen sëriñ moo leen di moom moo leen di dimbale à ce que ñu àgg seen borom mais aussi euh, tamit boo jëlee sa responsabilité nga ne ah man miikat diw laa àndal yéen nag yenn ay seet mais am na ñoo xamante ne nii gëm nañ la gëm goo xamante ne nii boo waxee même bu ñu bëggul woon sax dañ lay topp si bëgg boobu moo tax souvent yenn yu bëri soo koy def rek surtout nga am foo toll dangay ngay damay bëgg ngay préférer même loo far far far far nga xaw ko nëbb tuuti te xam ne yow mii kat mbooloo nga nga nga nga nga dajale te ñu bàyyiwaat xel que ni fitna du kenn nit rek moom moo koy def fii tëbuñu tëb rek nit jël xeer rek xaañ ko nit parce que ba mu koy xaañ soit daf koo insulté wala mu wax ko loo xamante ne nii moom naqari na ko ba keroog ba ba mu jël xeer bi sànni la ko yow yow yow yow yow nit ki li ñuy wax na Sénégal xamuñu ko tooñ ku ku fayu lañ xam te d'habitude loolu rek ngay faral di gis nañu jéem a defaraat euh, wax ji kenn ku nekk nga xam li la war nga def ko muy sëriñ muy euh, sénégalais bi nga xamante ne nii nit simple la nit ordinaire la ku ci nekk boo xoolee li la war nga def ko rek benn problème du am si dëkk bi mhm. te aussi nañu bàyyee fin na même ki ñuy wax ne moom dafa bëgg fin na sax moom stabilité bu sa ñoon dëkk bi stabilité rek moom moo fi am te nit ku nekk sa dëkk bi nga nekk jàmm nga fay ñaan parce que bu fa ay amee rek mën na bañ a yem ci ñooñu nga xamante ne nii ñoom ñoo ni yoonam nekku ci ay nag du yem ci boppu boro du yem ci xawma nañ koy wax ko voilà mi ngi noonu mm-hmm. nañu defaraat wax ji daat daat ko ku nekk nga xam li la war nga def ko mm-hmm. san sanjogu waaw macha allah <coughs> euh, waxtaan bi am na am na solo parce que wax la joo xam ni mi ngi ci pénc mi teyit euh, ku ci ne am dégg-dégg yu wuute mm-hmm. ci li nga xamante ne bi moom lañ gis ci pénc bi d'abord balaa may démarrer euh, may ñaan hmm. mbay peex ñu génne ko ci ndaje yu mel noonu parce que euh, genre mbay peex yi euh, baaxuñu di nekk ci yenn ndaje yi parce que du seen place moom ay làmbaki course fas foofu mooy place am parce que li muy wax foofa la amee solo waaye fii ci mbirum diine mbay peexoo bu mu fa jege maa ngi ñaan ci sëriñ yi bu mbay peex ñëwee daal bu mu sax jottali kafe waaw ah, buñ ko jox sax baraada naan ko joxeel kafe parce que euh, day dañuy def loo xam ni bokku ci waaw parce que bu nit ñëwee ñu tudd nit nga naan waruñu ko fee tudd yow kuñ fa war a tudd ak kuñ fa war a tudd yow yaa koy wax waaw donc loolu euh, yabaate la Euh, taxawaay boobu nga xam ne moom laa am kàddu yi nga xam ne nag dégg nañ nag euh, xam nga am réew bu ñu ci nekkee nit ku ne am nga sañ-sañu féete fu la neex nit ku ne mën nga ànd ku la neex mais maanaam sénégalais bi ñu waxee ne na sëriñ yi wax euh, dañu bëgg ci situation bi nga xamante ni moom lañ ne sëriñ yi yëkkati ci kàddu pour dal mën a am ci réew mi. te loolu nag man dama jàpp ni liy indi dal ci réew mi man dama jàpp ni eh, wax ji mi ngi démarré ci nit ki nga xam ni wër na senegal gi yëpp mm-hmm. daal di ne day def référendum yoo xam ni kenn dootu tuddati mbirum ñetteelu mandat ci réew mi wax ko ñëpp daal di àndandoo dal ne lii kat nañ leen ko voté bu ko defee li ñu daloon ci jamonoy ab Ablaye Wade ñu naan lii ak lii loolu kenn dootu ko fi mën a wax ñu pare ministre mi wër ne lii ñu waxkat kat amatut keneen kuy wax naan may ma ma yeggale jumaa jeeg wala ma def nii ak wala ma def naa bun jonn moo wax loolu Ismaïla Madior Fall répéteel ñu ko ñetti yoon biñ ca pare Seydou Gueye wax ko Oumar Youm wax ko Mimi Touré wax ko moom président Macky Sall mu ne mi ngi ci bii mu ne te bi mu ne ci la bokk buñ ma joxaatee beneen jeexal naa ci pare naa léegi nag ñu dem ba ci yàgg ñu gis ni yëf yaa ngi bëgg a jeex ñu commencé def ay jeu pour bëgg a dindi loolu ñu waxoon defe naa ni war nañu ko fàttali kàddu yi nga xam ne moom la yëkkati woon ne ko kat déet. mbir mi de mënoo cee bokk loolu rek moom mooy li nga xam ni moo indi tension bi yépp maanaam ku bëgg a bokk di wuti pexe du leneen li am ci réew mi yépp kii war naa bokk ak candidat sàngam warta ñëw ak candidat sàngam bu ñëwee day demee nii kii bu ñëwee day demee lépp bi ngi aju rek ci koo xam ni euh, warta bokk bëgg a bokk loolu nag foofu la sénégalais yi di xaar kilifa diine yi ngir ñoom ñi nga xamante ni bii kat am na nuñ doon yëkkatee seen kàddu defe naa ni projet bi nga xam ne moom la président Macky Sall bëgg a def nga xam ni lu ne mën na ci am maar day taal yàlla buñ ci yegg bu boobaa bu ñu ko yëkkatee woon seen kàddu je pense que ni dina am loo xamante ni bii euh, dana dana dakk euh, di wax tamit ne sëriñ yi tamit nañuy pareen saay informé wu parce que bu fekkee ne da nga wax ne benn njiit opposition nga ne daf ne. ku dee sa ndey juraat te loolu kooku waxu ko kooku def ne dee sax du ci am dane xale yi nee nañ xale yi seen détermination pour ñu wane ko dañu ne yegg na ci ba ku dee ëllëg sa yaay juraat waaye dee sax du ci am bu soobee yàlla loolu mooy li nga xam ne moom la soo Sonko dafa delloowaat waxaat li xale yi di wax pour wane ñoom ni ñu déterminé mu ne leen waaye dee du ci am léegi nag bu fekkee ne da bëgg a jël li xale yooyu di wax nga ne moom moo ko wax loolu nekkul ni noona la demee donc euh, nañ bu fekkente ni bi daal euh, amuñu accès ci yenn yi nañ leen koy waxal ba mu leer parce que tamit kilifa wax ci pénc mi euh, loo xamante ni bi pare na saa yi information yi mu jot nekkul yoo xamante ni bi yu baax la ba bu waxee mën ngaa juumloo kilifa mm-hmm. donc tamit loolu dafa am solo torop macha mm-hmm. allah jërëjëf euh, saa mi ngi noonu mu doonoon lu def wax euh, <laughs> li ay di jàmbat ah waaw ah, mi ngi noonu kon euh, ñi ngi jégalu ñëpp rek bu dee ni kàddu yi am na ñu jàpp ni gis nañ seen bopp ñu ngi leen di jégalu mais comme ci penc la nga ko waxee ñu teg ko ci penc mu waxtaanee ko te boo gisee ñi wax lii lépp mooy ñun ñoom la ñu dese ñu ne neen police bi far na gendarmerie justice maanaam réew mi am na fu ñu ko féetale ñun jàppoon nii nag bu ñu demee ba lépp të lépp jafe. ñoom ñoo ñu war a delloo siwaat ñoom ñu ngi leen di ñaan ñoom ñu nekk ci digg bi waaye bu ñu féetee rek day métti ci ñun taalibe yi kon euh, ajaratu kàddu gaa ngoog